seen Sénégal ay nit ñu diñ ñoo fi nekk. on a baalu correct ñoo fi nekk Sénégal ay nit ñu correct ñoo fi nekk. gis nga man dama yaakaar ne li xew Sénégal nga xam xamante Sénégal tey dafa mel ni yaa màgget ba am 100 ans foo laal day métti foo laal day metti tey jii tey jii lu am lu xew Sénégal ba sa yaram dawul man bu sa yaram daw man si mataakoli sama yaram dafay dafa dafay daw si loolu parce que ni ku nekk foo toog xoos sa akulaay talaa nga wax gis nga mën nu comprendre. sëñ bi nee naa chaque jour boo centre yaa ngi dégg ñaata jeunes ñooy des ndox bi. mais yow mais tu es comptable de de de mais, ce régime là mais c'est c'est un comme comme ah, Macky Sall ak Ablaye Wade mu def kee def 12 ans Macky Sall def 8 ans ak moom sénégalais yi fal ko voulant avoir quelque chose de nouveau mënul nekk dama dama sa kaso yi man damay def social social bu bëy kaso yi demal ñaata jeune ñoo fa nekk yoo xamante ne yëguñu tund université yaa ngi ni ba léegi mun mun na ubbi man dama lay wax loo xam te bët nga si teg université yaa ngi ni ba léegi ubbi wunu sëñ bi mais yow li ñuy wax ni ñun ñëpp xam nañ ko mais pourquoi yow tey nga koy soog a dénoncer man c'est ça mon problème parce que ñëpp wax nañ ko ba sonn yow période bi nga ko waroon wax bi nga ko waroon wax yaa ngi doon ruube boobu jamono ñu ngi foowee Sénégal yi yéen boobu jamono ñu ngi foowee Sénégal xam nga man man man xam nga ban taxawaay laa xaar si yéen candidat hmm. Benno Tas Yaakaar bi mais Amadou Ba. ngeen wax ko mu wax enfance am wax jaajaam ba fu mu egg tey ak alal bu mu yor milliards yi ñuy tudd fu mu ko jëlee. loolu bu ñu ko defee Sénégal yi ñu bëri. non non non non dama ne candidat la foog ngeen laaj ko ko parce que candidat la. alors alors candidat la foog ngeen laaj ko enfance am jaajaam ah ba milliards yu mu yor fa la jëlee ndax Sénégal fonctionnaire ab simple fonctionnaire mun naa nekk milliardaire. dinañ ñëwaat ci loolu xel xel doy na jundu simple fonctionnaire amul ku ko fi toogal simple fonctionnaire ndax mën naa nekk milliardaire. il n'est pas il n'a pas il n'a pas de de de visa amoo ah, visa bi foofu noonu donc ñun on va pas être là pour défendre ko donc yow tam par élégance ne personnalisez pas le débat le problème mooy yow dañ lay poser question ci yow sa posture ngay tontu si Amadou Ba euh, yow vous avez question boo mu posé mhm. boo mu posé tontu bu ànd la si fi leer yu waa waaw defal ñu sa bilan de compagnonnage ak Benno Bokk Yaakaar lan moo tax. ba yow ba frustré dem. waaw c'est quoi le problème dama ne en tant que sénégalais. Mm-hmm. man candidat Benno Bokk Yaakaar bi ñu tànn mi Amadou Ba du ma jiite. ok parce que man ku muy jiite. say loxo dee set wicc say loxo dee leer dee leen yow musoo jalgati alalu askan Sénégal. yaa ngi dégg wax eh. dee leen ni attends eh, dee leen ni dee leen ni camouflage camouflage bi si wàllu suufu Ndakaaru problème ak ak ak kii bi leer huit milliards yi dama ne dama ne dama ah, dama ne loolu loolu ñu ba nga xam boo fekk na booy wënda muus ah, ah, ba nga Idrissa Seck wax